merci beaucoup madame la présidente ñu ngi am mbégte di la gis tey nga présider euh, messieurs les ministres honorables députés chers collègues monsieur le ministre des sports ñu ngi lay nuyu yow ak délégation bi nga bi nga bi nga àndal di njëkkee rek di la wax ni monsieur ministre des sports une fan zone coûte trop cher aux organisateurs nous maires yi nga xamante ni dañu jël souvent ay initiatives di ko def ça nous coûte excessivement cher et pourtant le sport fait partie des domaines de compétences transférées loolu moo tax ñu ciy def li ñu mën mais rien que le signal de la RTS nous coûte 3 millions 500 alors maintenant ñu ngi jëm ci Coupe d'Afrique lan la ministère bi mën en rapport avec ministère des télécommunications ministère des finances pour jàppale les collectivités territoriales yi nga xam ni dañuy bëgg di def fan zone ne serait-ce que pour fixer xale yi nga xam ni bëgg nañu seetaan avec ferveur li nga xamante ni mooy ces compétitions au niveau international monsieur ministre damay ñëw ci le programme de vingt six stades départementaux euh, bi sa collègue Diatara di dem programme bi bi mu ko fi bàyyi département de Kër Massar moo nekk ci kaw alors le problème que nous avons eu mooy intermède bi am yow ak le ministre Diatara le premier ministre qui a hérité du département c'est vrai n'avait pas beaucoup de temps à consacrer véritablement à ces Mais il était convenu que le département de kër Kermessar, euh, ay travaux normalement war nañu commencé commencé lenn la ñu laajoon mooy nous en tant que maire yi fa nekk nañu xool pour ne pas pour de logiques de d'équité territoriale naka la ñuy def ba xam ci ban commune la mën a nekk maa sol suma daal dem seeti maire yi plus le président du conseil départemental il a été convenu et trouvé que ni danañ ko def au niveau de Kër Massar Nord particulièrement ci li nga xamante ni mooy ci parcelle ci Parcelles Assainies yi alors donc may bëgg a laaj foofu fan la programme boobu toll parce que sa a été inscrit dans le budget depuis l'année dernière et comme ça été mentionné aussi ci li nga xamante ni mooy la rapport jàpp naa ni war nañ ci mën a def ay jéego pour que loolu mën a gaaw très rapidement Euh, monsieur le ministre, je voudrais aussi que bu mettiez à, vos, à, la disposition des collectivités locales, des collectivités territoriales, toutes les compétences qui sont maire Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les communes. Je prends l'exemple de Yembol Sud. J'ai démarré la construction d'un stade depuis trois ans. Techniquement, on defar nañu li nga xamante ni moom mooy mur de clôture bi plateforme bi pare na voile bi pare na canalisation bi pare na pavage bi pare na lenn moo doon problème bi et loolu aussi je vais interpeller le ministre des finances initiative yi nga xamante ni collectivité territoriale yi am nañ ko surtout gazon bi nga xamante ni defaree ko Sénégal buy ñëw nga la ñu mën a dimbali nit ñi ci exonération ci li nga xamante ni mooy gazon boobu alors ñun li ñu dal ci sunu gazon mooy gazon bi dafa yegg si fekk parewuñu plateforme bi alors comme voilà gars yi mooy loolu mu jaay boobu commandé waat beneen entre temps fekk na bon prix yi yokk au niveau international maintenant li muy demandé mooy bu ñëwee est-ce que dina mën a am exonération ci loolu j'estime que ce sera un peu très euh, difficile mais en rapport avec le ministère des sports et collectivités territoriales yi nga xamante ni aussi dañuy jël initiative yu mel noonu ñu leen di mën a jàppale waxuma nag un privé boo xam ni dafay ñëw tabax stade def ko à usage commercial loolu waxuma ko mais collectivité territoriale nga xamante ni sport dafa bokk ci domaine de compétence transféré war nañ ko mën a jàppale ci lu mel noonu bu baax a baax monsieur le ministre may daanelee mooy ma sànni la benn xeer vous êtes ministre des sports nekk war a nekk nday ji seex vous êtes le président de Guédiawaye Football Club kañ ngay démissionner il faut nga démissionner pour joxe un bon exemple nag d'équité parce que ñun am nañu suñu union des frères de yëmbal am na ñeneen ñu am seen i seen i yeneen yeneen yeneen club ci yeneen mbir yi mais yow mënuloo nekk ministre des sports ba pare continuer di di di di gérer Guédiawaye Football Club alors maintenant bu fekkoonte ni beneen ministre nga amul problème mais bu ministre des sports nga ñu jox la donc démissionnel à la tête de Guédiawaye Football Club pour que mbir yi mën a am équité je vous remercie.